nee na sëñ Béthio ki tax li tax a tax moo tax lépp tax sëñ Béthio moo tax lépp tax bay tax tax yi nañu ko sant gaañi nañ leen sant sëriñ Béthio ngor gi dama ne dama ne sëñ Béthio sëñ Béthio kenn defalu ko dara sëriñ Saliou ko defal lépp kooku kooku day suñu njariñu àdduna ak àllaaxira kooku day suñu njariñu àdduna kooku day suñu lépp walay sëñ Béthio ay waay gaañ yi 46 ak 2018 waay gaañ yi du benn fan du ñaari fan 73 ans mu ngi ànd ak Serigne Saliou sonnul tayyiwul gëmmantiwul dajjantiwul fañul mbooloo mi ku ñëw mu ubbil la ku ñëw mu yaatal la ku ñëw mu faj say aajo sëriñ Saliou ko wax sëñ Béthio mënu ko mbakkee mënu ko jox naa la kun fayakun képp ku amati aajo bu dikkee ci yow bu la ko diisee na nga ko faj na ko da ko dee dogu ndax loo dogu ma fekk la ci dama ne kun nag yàllaa ko moom sëriñ Saliou li mu may sëñ Béthio bari na may na ko lépp waaye nag sëñ Béthio li sëriñ wax kun fayakun di fajuk aajo jàmm sëriñ Saliou teg ko ci loxoy bu la diisee ajam na ko faj waay gaa ñi waay gaa ñi nañ leen sant sëriñ Béthio cey li mu ñu defal cey li ñu defal dama ne mënuñoo jëf ba fay ko mënuñu ko mënuñoo wax ba fay ko mënuñu ko nañu xam ne naar bee fi indi xorom si ñu sant ko sant gi nag mooy ngor gi ànd ak moom topp ko te ne ci limu bëgg te di ko liggéeyal wax jaa ngi noonu maa ngi koy sant sama cantuk bopp cant gi mooy moom day daa def lépp ci lu ñu xam ak lu ñu xam tikoon te mu jomb ñu lool te mu jomb ñu lool soxna Aida Diallo cuun gi damay bëgg ñu ma koy wax ndax jaay naa sant bi yàgg na ba ma xamee ni mooy sama borom te laa jaay sant bi waaye soxna Aida Diallo ji damay bëgg ñu xam ni dama juddoo ci diggante pël ak séeréer mu fekk ma fa ma fekk jële ma fa ma jële indi ma fi ma indi yóbbu ma fa ma yóbbu mu jomb ma lool ma fas yéene doon as gor fas yéene koo jaamu fas yéene koo liggéeyal waaye fas yéene koo sant faw faw barki sëriñ Saaliw maa koy sant bu wér universel soxna Batoor ma nga ca sëriñ bi di jàmbaar lool sëriñ Béthio di jàmbaar lool ma nga fa di liggéeyal sëriñ bi waaye teewul mu ngi fi di liggéeyal sëriñ bi ndax mu ngi ànd ak mbooloo mi Touba ka sëriñ Touba mu ngi liggéeyal sëriñ bi ñoo àndee 17 avril bi ci jëf ci kàddu gu rafet ci organisation universelle soxna Dia Saliou Thioune di xel koom moom it maa ngi sant Serigne Béthio ànd nañu liggéey bi ci jëf ci kaddu yu rafet ci organiser mbooloo mi maa koy seereel àdduna waaw ndax ki mat seere mooy Serigne Béthio te moom xam na lépp waaye maa ngi bëgg ñëpp dégg ko ànd bu rafet lañu ànd di diisoo di waxtaan di déggoo and ak mbooloo mi ñii ñu Serigne Béthio dénk ñu nangul ñu lool ñu ànd di liggéeyal Serigne universel sëñ xaadim cuun moom it ànd nañu liggéey bi ci jëf ci organisation ndax moom it sëriñ bi da koo dénk mbooloo ànd nañ ko ci jëf ci organisation ci wax ju rafet ànd nañ di liggéeyal sëriñ Béthio maa ngi sant bu baax sëriñ Béthio sëñ Sall Gueule Tapée mooy taaw sëriñ bi ñoo ngi sant ki sa teewaay yi yàgg sa rak yii nga ko àndel waaw ñoo ngi sant bu baax ndax lii rek ñu war bu ma jógee foofu ah cantaakoon yi cantaakoon yi maa ngi naan jërëjëfati Serigne Béthio ci mbooleem cantaakoon yi ndax kat luñ daan def benn ñoo ngi koy def téeméer te kanam la jëm te yéen ñii lañ ko àndeel barki sëriñ Béthio muy Touba kër sëriñ Touba muy xelkom muy waa kër sëriñ Xaadim Cuun waaw barki sëriñ Béthio ñoo àndee liggéeyu sëriñ Béthio bii di xàcceendoo di dóorandoo moo tax di avril ren bii gaañi day 17 avril bu mës sa xew waaw day 17 avril bu mës sa xew te ku dikk di nga xam ne mu demee ndax fii may waxee yéen kat nag yi moo jotagu ma ñëw gëléem yi jënd nañ ko mu ngi dikk xar yi noonu ginaar yi noonu waaye condiment yi tàmbali naa wàcc te fruits yi ak yaa ngi dikk ak ndox mi te it matt mi si na waaw lépp ngi dikk ci tawféexu Serigne Béthio kon ñu maa ngi santaat bu baax mbokku taalibe yi ci ànd gi ñu àndee liggéey Serigne Béthio bii waaye yéen a di jàmbaar barke Sëriñ Béthio yéen a di as gor di ay taalibe ndax nag yombul de waaye santaat nañu Sëriñ Béthio ci boole gi muñu boole mbooleem cantaakoon yi biir réew mi ak bu cim réew kenn desul ku ci nekk yaa ngi def loo mën ak loo mënul ngir jublu ki Sëriñ Béthio bëgg kon yàlla na fi yàgg te gën a wér waaye maa ngi sant bu baax press bi mbooleem organe de presse yi fi teew seen taxawaay rafet na ndax kat wax dëgg yàlla te diggu njolloor ba léegi yéen a ngi fi taxaw seen taxawaay bii ngir jàllale cantuk sëriñ Saliou Mbacke gii nga xam ne sëriñ Béthio moo ko koy sante ñoo ngi bég di ñaan seen barab bi yokku te yéen ña fa nekk yéen ngeen yokku waaw ci saayir ak ci baatin ñoo ngi ñaan cant gi ñu bokk koog yéen ndol lentu cant yi ñoo ngi ñaan sëriñ Bàcc mu yàgg fi te wér ndax moom bu fi yàggee te wér lépp gën a jag lépp kat neex na waaye day gën a neex te lu mu gën a neex gën a baax ci ñun kon ñoo ngi santaat baax universel bokkum waaw góor liggéey bi rafet na jàmbaar nga barki sëriñ Béthio boobaak léegi yaa ngi ci ndax man kat woowuma kenn ñoom ñu ngi nii jëluma sama téléphone woo ci kenn yow mii la Serigne Béthio jox wàllum communication bi yow laa ci waxal ba nga ma waxee man la man sama yoon nekku ci sëñ Béthio yow lu mës a jiital ci communication bi kon doxalal yaa coordonné ba lépp daje fii kon waaw góor waaw kon mbokk taalibe yi maa ngi sant ñëpp bàyyiwuma kenn di ñaanal suñu sang bi mu yàgg fi loolu te gën a wér. sëñ Sadio Tappe kàddu yu rafet na waaw. sëñ sëñ sëñ sëñ euh, sëñ xaadim cuun honorable kaddu yi rafet na jërëjëf waaw mbokk taalibe yi jër universel kaddu yi rafet na waaw jër universel Ibrahima Diagne way neex nañu waaw jëriñ Omar Sow sant nañu Serigne Béthio mbokk taalibe waaw ah jër universel maam Cheikh Sikar waaw jàmbaaru Serigne Béthio gi waaw sikkar si neex na yëngal nga ñu ñun ñëpp waaw jërëjëfati sëriñ Béthio jaamu sëriñ saali yàlla na fi yàgg te gën a wér jaa ngeen jëf sëñ Dame ñoo ngi bég loolu sa taxawaay waaw nii nga fi teewee fàttali ñu wax ji ndax kat sëñ Béthio daan nañu ko wax mu neex ñu lool waaye nii nga fi toogee waxee ko nii nga ñu ko waxee dafa am feneen fu mu ñu yóbbu fa ñu yóbbu mooy dañoo gën a xamaat ne wallaay suñu waa ji amul morom sëriñ Saliou Mbacké lu yëngu lu ne moo ko yëngal moo matale ak a matale waaw waaye sa seere su rafet si nga wax te jëf ju rëy ji mu la defal wax nga dëgg de jombe na de sëriñ Saliou lay sëriñ Saliou kenn mënta xam waaye moom day dëgg-dëgg sëriñ Touba dëgg-dëgg sëriñ Touba nag bu toogee nga fekk si ko mu defal la tayangu gu rëy googee moo defal nga xam ne loolu pajum aajo la adduna ak àllaaxira gën jëm nga xam ne waxuma la yow waaye say doom say sët say sëttër ñi da leen di topp dañoo toog fii sa jëf ju rafet ji nga def jóg ngir seet si sëriñ Béthio ba fekkee fii li dala cee boole mm-hmm. moo tax na nga xam ne saw nag dina dikk soobee sëriñ Béthio waaw saw nag dina dikk saw xàbboon dina dikk ndax nag Serigne Saliou Mbacké jëfam ci mbindeef yi wallaay ñi mu defal bëri na ñëpp la defal waaye jàppet jàppet ji kum ko defal war ngaa toog wax ko waaw ndax mooy waxi sëñ Abdoulaat gi waaw sëñ Abdoulaat waxam jërëjëf ji mu wax sëñ Abdou Ahad nee na ku ñu defal ku ñu defal ba bët tegu ci. war ngaa wax ba nopp yëpp dégg ko mu jëfal la mu jëf jëfam jore jii mu jëf ci yow nga am fit wu toll nii yii nga am ndax mënoon nga ne am na fu ma fu fu ma di am looy incarné waaye sëriñ Saliou woy lépp wax ji nga ko waxaat rek ñun ñu dégg ko jariñu ci àdduna dégg ko jariñu ci defaat na ci yow leneen loo xam ne bokkul woon dolli na la mhm. waaw dolli na la barki sëriñ Béthio ngi bég lool ñoo ngi sant kaddu yi rafet na lool waaw ndax ñun suñu sang bi rek la am moom rek lañu am amuñu keneen ku dul moom ñun xam nañ ne mooy suñu raison de vivre ñun xam nañ ne bu ñu amee ci Serigne Touba lu toll dara ay ni gëm ko ni ñu ko gëmee te moo ko def ci ñun ndax Serigne Touba day lu kenn xamul kenn xamu ko ba di ko bëgg bëgg mbaa nga di ko gëm moo lay bëggal boppam moo tax nga di ko gëm wala nga di ko bëgg mhm. loolee nag. suñu sang bi moom Serigne Béthio moo ñu ko defal ndax sëriñ Saliou kat mënoon nañ koo bañ a xam ndax sëriñ Touba bi mu wootee màggalam gi ci mbuba mu njëkk ba ne képp koo xam ne sama mbég sa mbéga ma sant la yàlla tàmbale ko ci ginaar ba ci gëléem boobu ñun fekkee wuñ ko suñuy bàyyeeg suñuy ndey sax fekkee wuñ ko waaw kon buñ ko fekkee ci ji jii mu woote daan na waaye sëñ bi ne sa taalibe nañu fonk màggaluk Serigne Touba gi nañu fonk gàmmu gi nañu fonk xasaayid yi sëriñ Béthio day sëriñ Saliou mën nañ ko teg 17 avril am bii ndax mooy daje bu du woon moom lii mooy ndeyu bés yi ndax bu du woon bés bii 17 avril ñun duñu dooni nit bay dooni jullit bay dooni murit bay dooni cantaakoon bay jot digalu Serigne Touba moom Serigne Saliou ci jëf leen màggal gi ndax fekkee wuñ ca kaalaam gu njëkk ga kon loolu buñ ko amee moom sëñ Béthio jaamu Serigne Saliou moo ñu ko may ndax fa sëriñ Saliou kenn jotewu fa ku dul xamul ne mooma Serigne Béthio ne mooma ba mu lëndamee ba gan xamul ne Serigne Saliou mooy dëgg-dëgg Serigne Touba sëriñ Béthio moo ko leeral moo ne Serigne Saliou mooy Serigne Touba kon loolee buñ ko amee dund ko bëgg ko gëm ko ba yemale wuñ ko ak dara loolu sëñ Béthio ñu ko may moo tax boo ñëwee jël sa tànk yu rafet yi nga dox ñëw ba ci biir këram gi dala cee boole kon Serigne Saliou. waaye waaye Serigne Saliou defam waay defam waaye sëriñ Saliou defam waaye defam moo tax sant nañ bu baax mbokk taalibe yi guddi na te yitte yi bari na te bis bi yegsi na te faw nuñ ci nuñ ci doxoon rek dañu aj baar bi fi mu toll nii waxatuma sa aj baar waaye réeral baar bi waaw ndax baar bi sax boo ko ajee mën nga jéem a di ko jéem a jot waaye dañ koy réeral ba da ngay yéeg rek waaw kon nañ ci daal di nekkaat waaw na saf sap sëñ Béthio ngi dikk daa war neex daa war a neex bay kelkel yi daa war a yëngu waaw daa war neex ba sumbur mbaan kon yàlla na fi yàgg